waa Sénégal ba jàmm gaam su ma tudd may jaay jori Mamadou Jaay noo ko Cheikh Béthio borom Madinatul Salaam lamb ji Bërëra ju sonal bépp retaan te nga jafandu mën nga daan suba yàlla xam sa jàkkaan lamb daj la tante sens ba ree di daan jël sa défense gannaaw bu yàlla ñi dawal xarfa fuga ñi seen doole seen xaw wéetal suñ ko lambe daj duñu tiit ñi ko demul ñoom ñu dikk ñu ti ko ta ta ko ta ko ta tikk ñu tekki technique seen tactique ñi ne mbaw day baabri feema saf suukar ni lemma fu la fay da fit ak joom yar woo yam sa xorom R&B jóg ba

bul ànd ku sànni xeer for fair play la du wax ju ñaaw dagg saga rojo ña ko baal ñu bokk réewu Sénégal bi gàll ko sa dikk Serigne Touba ñaan na ko bikk yéen amateur da ngeen xër bëgg lamb fonk mër lu ko jëmee kanam mooy sa jër gàcce nga làmb télé yi presse bi journaliste yi portalekat yi waykat yi tëggkat yi jaaramaale policier yéen ñi saytu kaaraange eh, eh, ah. yéen ñi saytu kaaraange R&D jóg ba léegi R&D ba léegi ba léegi R&D boobu la boore la jóg ba léegi ba léegi ba léegi xër ci njàmbaar ngor teewal dëgg jóg for bay sa waar sa jëf taxaw tekki siiw ban ñi ni diw kee kan ñu ni diw laal nii ni diw liin ku ne jiin mën sa joob lu ñu gar nga góob nga xarañ këf xotti baax li nga jël sa jëf toog ni faax looy di biir wóor ñi lay tagg ku lay diir ba teg la màgg ñam sa xiir leesam dagg mbër kaamil du ketey fit ak a geer ana sa leer sa taw mbootu kaamil des ko ndaanaan mbër bari fànn jàngal mokkal dari dari daara ber la sa ker laa na fer nga kon axlan wa saxlan nan daara jeg sil mbër kaamil awren di jóg bëre awren di bëre bëre believe.